salaamaaleykum wa rahmatullah mbooloo mi nuyu naa ñëpp seen mbokk la professeur Abbas maa ngi ziar ñëpp di ñaanal ñépp jàmm di ko ñaanal suñu bopp eh, xam naa meññeent bi nga xam ne moom laa dugal nataalam moom lañuy ñëw indi ci leeral ndax am na mbokk ma ko doon laaj. Eh, ñu indil ko ci ay leeral ci boppam moom moom moom firi bi ñu ñu dugal nii xam naa dinaa ci ñëw dama bëgg a profité ci occasion bi rek ma am laaj bu mu ma bëggoon indi tontu moom it hmm, ki doon laaj ndax mën nañoo boole xobi karasol ak xobi goyab ne ko sa laaj bi di xam-xam kese la waaw moom daal xam-xam kese la. ci lu wér boole xobi karasol ak xobi goyab day faj soo demoon ci karasol ak ci goyab moom seeni meññeent ci boppam vitamine yi kese nga ciy fekk ak ak ay minéraux soo ñëwee ci seen xob da nga ciy fekk yi ñuy tuddee ay antioxydant antioxydant yàgg naa leen ko wax soo ko fekkee ci meññeent ci gàncax ci légume lu mu mën a doon yi ñuy jëfandikoo soo koy jëfandikoo daf lay aar ci tawati cancer yu bari ndax yi ñuy tuddee radicaux libre mooy dugg nit yàq ay cellules am jural ko cancer su dee yi ngay jëfandikoo dafa am yi ñuy tuddee antioxydant yooyu ñu tuddee radicaux libres duñ duñ duñ la mën a dugg moo tax koy mucc nga ci tawati cancer yi waaye moom gis nga boole xobi goyab ak xobi karasol yemul ci aar nag ci aare waaye traitement la ci wàllu cancer bu mu mën a doon cancer bi jàpp prostate cancer bi jàpp wenn cancer bi jàpp colon waaw cancer yëpp yëpp yëpp yëpp muy jàpp estomac ak bu mu ci mën a doon traitement la ci kon nag yow mi koy laaj xamal ne traitement la traitement bu cancer la ñaar yooyu boole leen xobi goyab xobi karasol waaye lu baax la ci wàllu hypertension ñi amee tension bu yéeg suñ koy jëfandikoo dafay normaliser seen tension diabétique yi dañ laan dañ leen kaa digal suñ koy jëfandikoo seen suukar day normal ñi amee yaram wu jéggi dayoo dañ leen ko diggal ndax dafay wàññi yaram waaw ñi nga xam ne buñ tëddee guddi duñ duñ nelaw dañuy amee insomnie suñ koy faral def daf leen ci dimbale waaye nag ginnaaw yooyu am na yeneen njëriñ yi ci nekk mooy gis nga yi nga xam ne mooy dal jigéen ñi mu tudd kyste fibrome myome lu mu bu mu mën a doon ci xeet yooyu trompe yu fàtt am na taw bi ñuy tuddee endométriose yooyu yëpp bool yi da koy traité moo tax dafa bokk ci traitement yi nga xam ne ci yi nga xam ne boo leen di boole bu dee jigéen ñi xam ne mi ngi sëy léegi amul doom chance la loolu saafara ba mu ba mën a am doom ndax ñàkk am doom ci jigéen ñu bari ay xeetu tawat yu leen dugg rek ñoo leen ñoo leen ko teg dafay raxas sa biir éliminer fibrome yaag kyste yaag yu demee noonu. ba am doom yomb la moo tax moom di leen boole chance bu rëy la waaw su dee nag kis teg fibrome ak myome na doon na nekk nag fibrome wala kis bu am volume bi nga xam ne jéggiwul dayoo parce que nag fibrome bi nga xam ne borom bàyyi na ko ba mu développé ba tollu nenn li waxuma du dagaawu dañ bokk boo koy boo jëfandikoo yi waaye dina jël temps moo tax am na fu muy toll pexe du amati lu dul rek dem rek defi opération ñu dindil la ko parce que dafa dafa dem ba jéggi dayoo waaye daal fii bu doo ko tàmbali wala kyste wala kii ay trompe am fat wala tawat yooyu nga xam ne benn bu ne mën na ci gaar jigéen ba du am doom bu mu ci mën a doon boole xobi karasol ak xobi goyab jàng euh, traitement la ci bopp waaw traitement la ci laa bëgg wax garab la ci naka lañ koy boole toujours rek da ngay wut juróomi xobi goyab boole ko ñeenti xobi karasol soo mënee am toujours bu tooy bi nag moo gën bu tooy bi su dee amoo ko nag nga jàpp ci bu wow bi juróomi xobi goyab ñeenti xobi karasol nga raxas def ci sa fa koy tàngale sotti ci liitaru ndox bàyyi ko mu tàmbale bax juróomi minute nga fay naka naka lañ koy naanee digg kaasu verre suba ak bëccëg ak ngoon kon nag gis nga ne lu am solo la ñu ngi koy digal kon ñi nga xam ne am nañ yi nga xam ne lépp lim naa ko waaw ñi ngi koy tere dal mooy ñi amee tension bu wàcc ndax mën na ko gën a wàccee te daf leen di sonal bu boobaa léegi nag ñu dugg ci waxtaan wi eh, meññeent bi nga xam ne moom laa wane eh, moom mooy pomme cannelle pomme cannelle dafa mel ni wolof wolof moom yàq na tur yi ba dangay dégg ñu naan fonkanel fonkanel waaw fonkanel waaye tur yi pomkanel la pomkanel xam naa bu doon tur yi ci wolof la jógee tubaab yi reprendre ko dama naan tubaab yàqu tur yi nag parce que nii mooy turam waaye nag pomkanel moom baatu tubaab la wolof moo yàqu tur yi tuddee ko fonkanel fonkanel waaye pom pomkanel la garab gi tamit am na weneen tour dinañ ko tuddee acce moo tax fruit bi dañ ko tuddee ci kàllaamay tubaab pomme cannelle danañ ko tuddee danañ ko tuddee at at garab gi kon mooy pomme walla ñu ne acce moom ñu bëri dañ koy jaawale karasol karasol ñu bëri dañ koy jaawale ak moom hmm. ndax xëy na xaw nañoo niroo tuuti waaye du ñu benn waaye nag am na lu leen niiroole ndax ñoo bokk sax génn ngir nag ñoo benn ñoo bokk ñoo bokk benn famille yu gàncax gañ gañ bokk waaw famille boobu li ñu tuddee les anonacées waaw anonacées yi soo ci demee di nga ci fekk corossol di nga ci fekk bii ñuy waxtaanee tey fonkanel waaw comme ñu wax ko comme ni ko gars yi di waxee fii rek fonkanel waaw di ci fekk garab goo ñu tuddee dugóor dugóor waaw dugóor waaw ñooñu yëpp ci benn famille boobu lañ bokk annoncé yi waaye ëpp nañ loolu ndax boo fa demee da ci fekk lu mat ñaari junni ak juróomi ak juróomi téeméeri xeetu gàncax yi ay garab yu mbaay lañ su ma nee garab yu yemambaay mooy comme comme comme garab gi ñuy waxtaanee tey garab gi nga xam ne ci la ñuy jëlee furu furu bi gars yi di tuddee fi fonkanel te ma ne leen mooy pomkanel garab gu yem lay doon ndax diggante trois mètres ba juróom-ñetti mètre la néew na lu muy romb juróom-ñetti mètre bu guddee ba gudd waaw nag soo demee ci famille boobu mu mu mu bokk di nga fekk garab yu yem di nga ca fekk yu am jëmm waaye di nga fekk yi nga xam ne daanaka ay ay ay eh, eh, xeetu garab yu law lañ rek ay xeetu ñax sax daanaka waaw yooyu yëpp di ko fekk ci espèces yi nga xam ne ca eh, ci la garab gi ñu ñu naan pomme bokk moom nag dafa nekk garab gi nga xam ne. dafa ñeme ñeme na tàngaay ñeme na sax bërëb yu xaw wow tuuti waaw moo tax soo seetloo ci ay île la cosaanoo am na ñu jàpp na sax ci île yi nekk ci continent américain yi foofu mooy cosaanam dëgg waaye daal am nay fiit waaw Afrique soowu jant ci sunu réew dafa mën na mën na fee meññ ndax garab gu ñeme tàngaay la. waaw ñemewu du garab du garab ngay ngay meññee ci réewu tubaab yi nga xam dañoo sedd déedéet soo ko fekkee rek dañ ko faa yóbbu moom daal ci suñu réew yi wala Amérique du Sud foofu foofu foofu nga koy fekk waaw moom pomme moom nag fruit bu am njëriñ la fruit bi d'abord meññeent bi ndax da ci fekk vitamine A vitamine C vitamine B1 da fekk li ñu tuddee fibre calcium fer phosphore waaw ah, dafa am suukar nag dafa saf suukar waaye suukar su sell moo ci ne am na li ñu tuddee alcalo alcaloïde alcaloïde yooyu nag moom mooy antioxydant yi ma doon wax waaw yooyu nekk ci moo tax mu bari njëriñ ndax dafa bëri ferñeent waaw so njëriñ nga xam ne xamal nañ ko moom fruit bi ñuy tuddee pom cannelle waaw te gars yi naan fonkanel li ci jiitu mooy lu baax la ci stress am na fruits yi dañuy tax doo stressé di ko jëfandikoo waaw fruits yi boo koy lekk da ngay dagg rek ñam wi ci biir bu la neexee sax nga koy tibbee ko duddi lekk waaye doom yi nag doom yi moom bu ko jàllale doom yi ëpp naa jàllale waaw doom yi ñu li ngay fekk ci biir moom sànnel rek wala xëy na mu am na yeneen xeetu njëriñ xëy na nañ ci ñëw waaye kenn du ko lekk ñam wi ci ñam wu weex wi ci biir te nooy nepp euh, saf suukar. benn ni sax lu amaale benn xeetu parfum bu neex ah, noonu noonu mooy melokaan bi noonu noonu noonu mooy noonu la màndargawoo ñam woowu la ñuy kon nag baax na ci stress baax na ci wàllu gët ah, di jëfandikoo pomme cannelle comme day tax jàngoroy bët yi nga mucc ci ak bu mu mën a doon waaw ah. yooyu may yaram nag waaw ndax suukar su suukar si ci nekk moo tax boo jëfandikoo lu bëri nga am yaram waaw ñi jeex ñi mën nañ koy jëfandikoo waaye suukar suus bu ko ragal suukar su sell la waaw dafa baax ci tension bu yéeg baax ci tawati xol yi baax na ci jabet waaw baax na sax ci tawat yi dellu ci wàllu nooy yi di ko jëfandikoo li ñuy tuddee bronchite walla soqat wala asthme yooyu yëpp waaye dafay aar rein dafay aar cër bi ñuy tuddee wextaan waaw dafay aar sax ñu tuddee ko machine machine bi nga xam ne mooy mooy liggéeyaat li ñuy lekk te tubaab di ko tuddee appareil digestif waaw daf koy aar ba mu mën a fonctionner normal bu ko dee xam nga buy fonctionner normal soo lekkee lekk ga day res normal doo amee ballonnement doo amee biir bu amee ngelaw doo faral di seere yii yëpp kon nag kon nag pomme cannelle daf ci aare waaw dafay aare ci tawati prostate yi ma ñëwaat ci waaw ci cancer bi jàpp prostate ci boppam laa bëgg a wax da koy da ci aare waaye dafay aare ci cancer bi jàpp wenn da ci aare bu baax a baax a baax ak cancer bi jàpp xëtër yi te cancer bi jàpp cër bi nga xam ne moom la ñu tuddee gàddam yooyu yëpp rek bu dee yaa ngi jëfandikoo eh, moom pomme bi mën na la ci dimbale soo demee ci garab yi nag ci xob ya gis nga xobam yooyu moom it tawat nooy yëpp dañ dañ ko koy fajee asthme ak sokkat tawat yi jàpp xëtër yi yooyu yëpp xob yi baax nañ ci ak tawat yi jàpp xol surtout ñi nga xam ne seen jafe-jafe ci seen wàllu xol mooy xol bi xol bi ni muy tëf-tëfee moo normalul waaw moom la gaa yi di tuddee arythmie cardiaque waaw sa sa rythme sa rythme kër gi rit bi mooy noonu muy tëf-tëfee moo moo am moo feebar moo am gàllankoor waaw kon nag xob yi da koy faj baax na ci nga xam ne buñ tëddee duñ nelaw waaye xob yi antibiotique la tawat yu bari buñ la duggee ay doomu jàngoro yi la mën a dugg soo koy jël rek dafa leen di rey waaw baax na ci wàllu sànn baax na ci lakk-lakk lakk-lakk nag xob yu wow yi la dañ koy weer ba mu wow wal sunguf di ko suy ci lakk baax na ci biir buy daw baax na ci siburu baax na ci wocc waaw ba ci rhumatisme métti yi jàpp yax yi yooyu yëpp xob yi déglu nañ ko ci eh, baax na ci coona baax na ci yaram wu tàng waaw baax na ci jabet waaw ba ci ay akk yu feeñ ci deru yaram waaw deru yaram bu feebar ay picc ak ay xam ak yi ñu mën a génn yu bari yaram yu xasan ak siti bu fas ci yaram waaw booy baxal xob yi ba mu baax di sangoo ndox mi eh, garab la ci waaw waaw moom it digle nañ ko ci wàllu jabet defe naa wax nañ ko ak tension bu yéeg ak biiru tànc waaw ak jigéen ci toll ci mat mat wa metti lool ba jaaxal ñépp nañ ko wutal xob yi garab gi ñu naan fonkanel waaw baax na ci jigéen ju tollu ménopause baax na ci saqat xob yi nag jël ci ñett ba ñeent rek baaxal ko ci litre ndox juróomi minute juróomi minute rek nga fay nga teggi nañ naa naanee mooy par digg kaas verre suba ak bëccëg ak ngoon waaw su dee xas mi ak reen yi nag daanaka ñoo bokk ñoom seeni njëriñ benn la rek su amee ci lenn ci xas mi wala ci reen bi mën na laa fajal waaru biiru tànj lu seere estomac ulcère waaw yooyu daal xamal nañ ko lii di eh, reen bi waaw eh, reen bi jël ci wala xas mi rek ñett baxal ci liitaru ndox moom it ci wàllu naan dañ koy jël par digg kaas eh, suba ak bëccëg ak ngoon kon nag gis nga ba ci xob yi sax balaa ñoo tëj baax na ci ay yoo dafay dàq yoo xobi yi weere ba mu rek moñaxa ko di ko def cuuraay bërëb yu am yooyu yi dafay dàq dafay dàq yooyu moom xob yi garab gi nga xam ne moom la ñuy waxtaanee doom yi moom mën na rey ay teñ waaw doom yi yooyu wal ko ba mu wow doom yi ñoo li ci biir ma ne bu ko genn lekk nañ koy sànni walal ba mu mokk def ko sunguf rek jaxase ko karité di ko diw sa bopp waaw dafay rey teñ ñoo yore ay teeñ waaw eh, kon nag gis nga ne moom gàncax gi ñu naan pomme cannelle moom it gàncax la gi nga xam ne eh, njëriñi kese la comme garab yu bari yi nga xam ne ñu ngi leen di eh, jëfandikoo moo tax yenn saa yi ñu xëy rek waxtaanee garab wax njëriñ ci nekk day am solo. ndax ndi mbir mën nga koy jëfandikoo rek mu neex wala nga aadawa ko jëfandikoo fekk sax xamoo ne yow la ngay jël njëriñi kese la kon nag loolu moo doon waxtaan wi tey xam naa balaa ma tëj rek ma fàttali mbokk yi may déglu man professeur Abbas garab gi nga xam ne yàlla dogal na man maa ko liggéey dama liggéey genn garab tuddee ko la roquette waaw la roquette waaw muy garab gu am solo nga xam ne ay gàncax gàncaxu réew mi rek laa ko liggéeyee lépp gànc léppam gàncax la cent pour cent bio cent pour cent naturel garab gi lu muy faj wàllu néew kàttan waaw dama toog ba xam ni bëri na ci jamono yàgg nañoo liggéey nag garab waaye yàgguñ cee def daanuñ cee def publicité bu mat bu mel nii waaw ndax néew kàttan dafa bari te gàllankoor la nag wax dëgg yàlla sëy yu bari yëngal na leen góor gu xëy rek mënatul dara daanaka kon nag ñi amee jafe-jafe néew kàttan mu dab leen wala mu yàgg ci ñoom garab gi baax na ci ñoom de waaw ak nu mën a dikkee rek garab gi traitement la ci waaye yemu ca la baax na ci seere baax na ci ballonnement baax na ci coono baax na ci yaram wuy metti waaw ba ci cholestérol bii may wax nii soo ko bëree sa yaram boo koy jël da koy dindi waaw kon nag la roquette ñi ko soxla dëkk yi xëy na fii ci dakaar ñu nekk ñu nekk Dakar wala foo mën a nekkee rek man professeur Abbas boo ma woowee danañ fexe ba nga am ci incha allah sama numéro 77 786 65 19 yemul nag Ndakaaru gi ndax Touba ak li ko wër yëpp ñi fa nekk. te soxla ci mën nañoo woo sëñ Moustapha Diop moom moo ñu fa nekkal numéro am 76 383 87 34. su dee ñi dëkkee fële ca Mbour Mbour ak li wër Mbour yëpp imam Diène mooñu fa nekkal imam Mamadou Lamine Diène numéro am 77 636 66 36 ba Kaolack garab baa ngi fa kawlax ak li wër Kaolack yëpp ñu dëkkee boor boobu te soxla ci nañu woo oustaz Alioune Faye numéro 77 121 79 46 su dee ñi dëkkee Thiès ak Tivaouane ak ak ñi wër Thiès yëpp mën nañu woo sëñ Paté Gueye numéro 70 66 51 su dee ñi dëkkee ndar ak diiwaan yooyu dëkk yooyu wër ndar yépp mën nañu woo Baye Diop Baye Diop moo ñu fa teewal numéro 77 965 45 84 su dee ñu dëkkee Kaarang jàpp Gambi Baye Idrissa Ndiaye moo ñu fa nekkal Baye Idi numéro 77 la 611 55 85 salaamaaleykum wa rahmatullah